abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV kawteef kawteef dal leen ak jàmm mbokki internet yi di leen di wax na ko woy leen di abonné te ngeen di bës cloche de notification bi seen j'aime ñi ngi koy xaar dafa mel ne nag vidéo yi nga xam ne rek mi ngi doon jot a ci kii nga xam ne rek moom mooy Marème fay sàll jamono yi ñu toll nii nag mën nañ ne loxo dal di nay darati li nga xam ne rek moom mooy gémmiñ gannaaw nag moom mi nga xam ne rek mooy Juan Branco mi nga xam ne rek daal di nañ koy wan a gis mu daal di def benn révélation bu nga xam ne bu doy waar a doy waar a doy waar la jëmale ko nag ci kaw ki nga xam ne rek moom mooy Marème Faye Sall ci ay vidéo yu nga xam ne rek ñu bëree bëri dañoo jàppoon ne loolee ay caaxaan la loolee dafa nekk wax yu nga xam ne wax yu amul la rek wante kat bile yoon ñu daal di gisaat nag ki nga xam ne rek moom mooy Juan Branco moom mii nga xam ne nag mën nañu gannaaw bi mu tiitalee ay sénégalais yu baree baree baree baree bëri ci vidéo yi nga xam ne rek daal dina koy wan a traité que ne kii di Marème fay sàll daal dinay jot a def benn locomotive bu nga xam ne rek mën nañ ne jëngal na askanu Sunugaal ba tax ñu baree bari di tëbaka dal bi la yoon nag mu daal di génnaat génnaat ci beneen facette moom mi nga xam ne rek mën nañ ne gannaaw bi mu daal di publier ci li nga xam ne rek moom mooy page Facebook am kenekat vidéo yooyee dafa nekk vidéo yu nga xam ne rek yu doy waar te ñàng la fii ci diwaanu Sénégal rawatina nag ñi nga xam ne rek dañuy jàppal tànk ki nga xam ne rek moom mooy Marème Faye Sall ci li nga xam xam ne rek moom mooy politique bi rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo bokk ca foofale ca APR di ko nëbbal nag li nga xam ne rek moom mooy vidéo yooye ñu daal di gisaat nag beneen révélation bu nga xam ne rek daal nay jot a am ci côté ki nga xam ne rek moom mooy Juan Branco gannaaw publication boobee nag mën nañ ba jamono yi ñu toll nii moom mii nga xam ne mooy Juan Branco génneegul benn vidéo teg ko ci taabul ji donte la Marème fay Sall mi ngi ne patt mel ne nag vidéo yi dafa am wante kat dara xewagul